<laughs> mais yàgg ngeen def open press mais tey bis bi ni mu mel ngeen andi ko fi am te ne mooy Stade Alassane Djigo mais mu teel a fees leen Pikine noa teeroo lan ngeen ba yëgee ngeen bi mhm. moo faral boppam Pikine tey moo jug faral boppam ànd ki mbokkam noonu la ñuy àndee ba stade ci kattanu yàlla daan gaynde gu màggit gi ñibbi boobu ba léegi gis ñu Aziz wax daal di xaw a loolu ci combat bi lu war a loolu xam nga lu tax dañuy maanaam wax ji dañu ne bërët booy bi di animer combat bi pour bëgg a jaay combat bi mhm. bala gay bëgg ko suuxlu ci ay communication ñu ni ko nel tekk tekk wan la yoon delloo waatal communication bi parce que ñi la bëgg daanoo bari surtout Cheikh Yirim Dumbaan la bala ko du mbaay Yirim eh may sëxëri mi ci njob kooku dégg déggoo li ma lax maamam alaaj sàmm dukumaan Cheikh Yirim ci boppam bi mu génnee àdduna moo ko sulli ñu naan lu tax mu koy sulli woowi sappoor yo woowi pëlis mu ne sama bàyyee na ma woon bu duggee ci biir suuf ma solal ko manto bi sulli ko fekk ci pepp suufam fii nëbul xeeñul deful dara mu mar ko solal ko manto bi. état forme mbër mi tey noo ko gisee. waa doon xale rek te boo gisee communication bi lépp naaguwul dañuy wuti yàlla nañu yàlla may ndam ci a Seydina Mohamed yàlla nañu cat seexlu naaguwunu ëppalunu yàlla nañu yàlla may ndam gaynde gu màgget gi leen bëgg a jël dugalaat ko ci kaafam. démb démb amoon benn dernier face to face ngeen absenté ñëpp ni seen ne kan. ah xamoo diggante moo kan boo ko xamul du ma la ko wax. moog def na ko. ba découragé ñibbi nag. xanaa dañuy waxtaan xanaa yéen da ngeen fa fàtte xaju fi sénégalais yi nañu nañu nekk ay nitu dëgg. moog xoolal bu leen keberaay tiim affaire yi ñii ñuy kii mais moom defoon na ko fi. yaa ngi dégg booy ñaa xoolal démb bi muy ñëw la fekk maanaam fi mu nekkoon moo sori bi muy ñëw toman tommanteeg mu jeex mais moom du daw nit. ginnaaw Balla Gaye même bu dul ay affaire kii sax booy ñaa ragalu ko. Balla Gaye lan lañ ciy ragal nit. bi ragaloo la déggoo mystique bi sax ragaluñ ko xam nga lan ragal yàlla kooku. Cheikh na Cheikh Sadbou Cheikh na Cheikh Sadbou Cheikh na Cheikh la yaakaar kenn dur ñi euh, bëgg Cheikh na Cheikh Sadbou di di dellu ginnaaw doomu yonent bi ñun fi nu jëm xam nañu ko li ñu wax naa la wax naa la sànq ne leen na gaa yi ñëw ak discipline ndax mooy ambassadeur non violence bu kenn yàq bu kenn coow bu kenn xuloo waaye bu suba bu bu bu bu euh, jour le premier. ma eey waay. eey bala ko dumaane yirim ee may sa mi ci job Cheikh Yirim dumaane ay samaam ma daawul nga de eey eey eey eey dem face to bi ñëwul gars yi da ngeen a daw mu mi ñëwul non non non non non daa fekkoon mu voyagé ku xam Boy Niang xam ne boo mu commencé ba tey musul yàq lamb Boy Niang musul yàq lamb te te moom toll na si sport foo xamante ne nii dépassé na ay bañ a ñëw si ay signature wala yooyu daa fekk mu nekk say yenn occupation yoo xamante ne mënuloo ñëw mais yabal na ay nitam ay Balla Gaye nañ bàyyi Boy Niang bi ñu bëgg a jaxaseeg àdduna ak wala yooyu noonu dimaas lañ lañ moom lañ sekk te suñu sañoon day rafet parce que làmb la lu ñaaw xaju fi Balla Gaye ak Boy Niang du ñuy ennemi adversaire de 20 minutes rek lañ ah. waaw Balla Gaye nag amuñu lu koy wax waxoon nañ ko doo si làmb te loolu dañ dëkk yow doo suñu idole si làmb yow yaa fi njëkk naan po doo suñu idol si làmb ñun dawoo suñu yaram Balla Gaye wóor na yàlla dawoo suñu suñu yaram boo ñaanal ñu ngi koy ñaanal na ko boo ñaanal na ko réew mi ñëpp ñaanal ndam soxla nañ ko te bëgg nañ ko yàlla na ko yàlla defal jàmm dimanche moo moo si des ñu wax waa Pikine yëpp ñu génn ñëw teel a duy arène nationale. mais combat ni ngeen ko jëlee moo jaaxal ñëpp Pikine ni ñu jëlee combat. Balla la. Boucher lu mu bokk lu mu baax dañ koy ñeer Boucher Boucher ko Diop lu mu baax dañ koy ñeer bi <laughs> def lu mu wax ko job lu mu baax dañ koy ñeer lu mu baax dañ koy ñeer làmb ji ñoo ko moom fii la Pikine làmb ji fii lay des fii lay des Pikine làmb ji fii lay des ñoo moom làmb ji ñoo ko moom ñooy dirigé ñooy def lépp naati féex la suñu rumul la daw laaxu la waaw ah, affaire bi jamono la jamono. naati peex la naati peex. suñu rubul la. day xaar da koy daan maa lay ziar. maa lay ziar Thiandoum. loo ci wax. ah lamb ja xanaa pare nañ waaj amatul. bu jëf taxawee wax day daal di toog. pare mooy yow toujours pare bilaa walaay xale bu ndaw barke alxuraanu karim le premier la ñuy xaar arbitre génn seen diggante ñoom ñaar mooy yow loolu day dara barke alxuraanu karim bilaa walaay wa taalaay le premier le bu arbitre génnee seen diggante ñu xam kuy Boy Niang barki alxuraanu karim cooli moo bëri nii rek billaa walaay càndum confiance bi ngeen dégagé lan la confiance bi suñu mbër moo ñu ko dooleel eh, moom moo ñu ko moom eh. moom mbër mi moo ñu war lu tax ñu topp ko moom moo ñu war lu tax ñu ko moo ñu war lu tax ñu jàpp ko te ñu nag moom ba isi repose su gëm sa baay barki alxuraanu karim waaw naka mu gaan man benn affaire laa ni wax rek nee nañ ngemb xaalis soo koy def diwlin bee niinatul bàyyi xel bu baax li may wax du ngeen def daanu. mais ñi ni bëre dañoo mën lamb rek. waaw lamb lan ñooñu li may wax waa nga ma la ñooñu jeexal nañ ay gaynde yu mag bala gaynde sax ëmb fóot la biir rek la dese. waaw jërëjëf mënu si nu mu def daanu. mais eh, comme dama lay yóbbu dama lay yóbbu Guédiawaye ne Aziz Ndiaye. non non. waaw Aziz Ndiaye. doo yàlla doo yàlla affaire du xaalis de. doo yàlla xaalis. dëgg sa bu yoo xaalis kenn du dee. dañuy jënd xaalis bu baax. amul sens ngeen amul sens. Aziz Ndiaye lu mu def daanu lu mu def daanu. laay walaay. kenn ku mag Bousse eh, Bousse yaa Bousse foog ñu xeex stade maa ak yow. ñu xeex eh, wóor na yàlla foog ñu xeex. naa la gis naa la dóor coup. léegi naa la gis naa la dóor coup Bousse. Bousse lakkatu xaj la lakkatu xaj la eh. Bousse yow doo dara yow. doo dara si nga war a bàyyi. mooy loolu noonu. daw làqu eh Bousse daw làqu eh. très cher internaute ba tey ñu nekk ak euh, waa kër Boy Niang fans club bi Serigne Cheikh ñi lay ziar. Eh, ku baax ku baax ñi ngi delo siyaar naka xewali lepp lépp jàmm na ñep ñëpp nuyu nañ ñëpp ngi talal ñep loxo wa ñuy ñaanal seen dom boy ñaaw mu daan balagay jël bu leer nañ si barke serigne Fallou wa ñi ngi koy dagaan Baye Fall yep nak talal na ñep loxo bàyyiwuñ kenn mais na Baye Fall jital nañ si Baye Fall wa keur maam Serap Fall ñi ngi leen di ñaan victoire bu reuy si kaw balagay mais tay open press bi ni mel dafa impressionné ñu bari nan ngeen ko gisee. waaw open press bi xam nga rek ñun dañuy jéem ay tout tànk ñoo fi nekk ñoo xamante ne nii xam nga balaa ñoo def bis dañuy taxaw waxtaan si ba déggoo daal yaa ma gën a xam moo tax affaire bi xaw a jaar jaar yoon daal. mbër mi kañ nga ko dala topp. no mbër bi bi ma ko dalee topp yàgg na kooku jàpp ma ko. jàppoo déedéet. mais combat bi doon combat bam ten tey mun naa ni ngeen ko jëlee dafa am lu bëri lu muy signifié lan moo waral combat am doyoo boobu ci yéen. waaw combat bi day combat rek comme yeneen combat yi. waaw combat du weesu combat. wa mbeur mbeur la mbeur bu ndaw ak mbeur bu mag ñoyam xeyna na ñoy wuté mais mom mbeur mom mbeur la mi ngi melni police police la mun ta wessu lolu dañu gëna sét digënté diggante géejawaay dara sétul bi combat bi taxee ba léegi. waaw mais du mëna sét parce que géejawaay Pikine lolu derby la koku derby la ñom ñoo ñoo di derby xam nga mais géejawaay Pikine Pikine du sét nawlé ma la wax lolu lolu dafa lèr démb gis nañ ngeen war a amal dernier face to face mbër mi absenté coow lu bëri ci ñu naan da ngeen a daw seen mbër ñemewul Balla lu nekk ñu wax. non dañoo daw kon la première dina leer bu fekkee dañoo daw mais jàkkaarloo bi loolu xëy na mbër mi dafa génn dem fu sori gaa yu bari demoon nañ waaw gaa yu bari demoon nañ mais tamit gis nañ tamit image boo xamante ne nii image bu salte la loolu tey na xel trop xam nga. mais dal ñun li ñu gëna a amal importance moy le 1er janvier. taw ah, li muy wax ni boo lu xott tuba bi pour man moom moo ko xottil boppam sax. ah lolu mom secret la koku koku mom da nga ko koy laaj. mom ah. <laughs> waaw koku mom man mom sama domaine li la woon. mais mbër mi ñu gis tam détermination ak engagement bi mu àndal ci combat bi lan mo nekk ci ginaaw lool waaw li nekk ci ginaaw lool moy sañ-sañam. ak bëgg-bëggam xamna li ni fim koy yobbu suma ma juumul ñaar lay bëreel. supporter lay bëreel ak waajuram. waruma woon a egg foofu sax mais ñaar lay bëreel mhm. parce que supporteru Boy Niang dégg na lu ne mhm. waajuru Boy Niang dégg na lu ne moo tax dégg na lu ne xam nga. mais Cheikh est-ce loolu mënul diis ci moom. mënul diis non bal diis ci moom mhm. du diis loolu da koy fàtte xam nga lan mooy fi mu toll nii diis diis bi ñun ñu bis bi jot bu bis bi jotee di nga xam ne lépp dëgg la. dégg ñu la ray tuba bi yomb na mais njaal maa jafe. mais benen ponk également mystique bi feus trop ci combat bi côté bob mbaa paré ngeen ci côté yëpp. ah mystique bi mom mystique bi mom lolu mom mystique bi mom lolu mom wax deug yalla fofu sama domaine eggu fa mom parce que walu mystique lu ma la ci wax ah man gisuma bari way bi de yow am nga xam-xam de. da ngeen nar ñëw le premier inshallah wa ah, le premier lolu secret la ku ñepp xam fi nga jëm doo en tant que supporter ou pas mbeur mi non ñun supporter yi mom ñu daan ñëwé combat non la ñuy ñëwé bi dañ koy renforcer mu gëna am doolé parce que dañ né ki ñuy bëreel mënu ñu ko yëngal mais yalla baax na ba la première baat bo met na len non metti wuñu parce que xam nañ ki ñu yor xam nga nit ki lenn li bu la metté day fekk mënoko mais lo mën la metti bu la ko waxé da la ñaax té dañu ñaax looy tàggatoo maa lay jaajëf. waaw li may tàggatoo di sant ñëpp di sant kilifa diine kilifa aada waa ñi ngi ñaanal sunu xalifa général de mouridisme mu yàgg fi loolu te wér sëriñ mun Mbàkke di ko ñaanal xalifa général de Baye Fall mu yàgg fi loolu te wér Modou Mbène Fall ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di ñaanal waa kër maam Seera Fall ak waa kër sëriñ Touba di ñaanal ñëpp bàyyiwuñ benn kilifa diine ak kilifa aada waa di ñaan si senegal jàmm yàlla defal ñu jàmm defal ñu ndam lu rëy. ñu xam ne nag ndam li génnul Sénégal wasalaam ok.